بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده ورسوله كتابه الحكيم wa bayyana fiihi ahkaama diini alqawim wa arshada bihi annaas ila siratihi almustaqim wasalaatu wasalaam ala sayidi anbiyaihi walmursalin wa imaami asfiyaihi walmuttaqin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salaatan wa salaaman daaimayni mutalazimayni ila yowm alqiyamati assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi nii seetaan ci TMS TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen baal wàq di leen ko baal di ñaan yàlla yàlla boole defal ñu jéggal nuyoo boobu ak ziara bi ñu ngi ciy jiital kilifa diine yépp tabaarakallaahu jiital ci nag sunu sëriñ sunu PDG alxaaji Thierno Moule saw tabaarakallaahu xalif général kullu jinne waaye xalif général kullu médecin traditionnel ci àdduna ñu nuyu ko baax ziara ko ndokkeel ko ñaanal ko yàlla nuyu la reine madame Sow nuyu prince Moule ak mbooleem personnelu TMS TV yëpp tabaarakallaahu di nuyu ki nu jàkkaar lool muy xaaji Yusuf tabaarakallaahu di ko ndokkeel bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yàlla nu yàlla may ñu woor ko koor gi ci jàmm waaye yàlla nañu yàlla may ñu àggale ko ci jàmm barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngoog ñëwati nañ ci seen jataayu tafsir ngeen ànd ci ak seen xarit oustaz Babacar Dieye al Karim tabaarakallaahu mu mel ni bi passé ñu ngi woon ci allazina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun wa yuqimuuna salaata googu nag ci lañ taxawoon yàlla ne ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla mooy ñan mooy ñi nga xam ne ñooy taxawal julli waaw mandarga la ci nga ragal yàlla ragal yàlla dafa am ay màndarga maanaam da doon koo xam ni ku sàmm kóllëre ngay doon màndarga la ci ragal yàlla maanaam ngay taxawal julli màndarga la ci ragal yàlla ku ragal yàlla da ngay julli waaw ba ma waxoon la ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na yoo xam ni moom la yàlla def ngir muy kafaara sunuy bàkkaar ngir bu ñu defee bàkkaar mu koy effacé waaw wax naa la ni bokk na ci yi kafaara bàkkaar salawaatul xams julli juróom bokk na ci liy effacé bàkkaar julli juróom nag li muy effacé bàkkaar mooy boo jullee suba avant tisbaar bàkkaar yi nga fi def yëpp bu tisbaar jotee boo jullee tisbaar bàkkaar yooy tisbaar gi da koy effacé boo jullee tisbaar avant tàkkusaan bàkkaar yi nga def diggante tisbaar ak euh, boo jullee tàkkusaan takkusaan googu day effacé bàkkaar yi boo jullee timis bàkkaar yi nga def diggante tàkkusaan ak timis boo jullee timis timis ki day effacé bàkkaar yooyu boo jullee gee noonu boo jullee boo jugee gee jëm fajar aussi noonu kon nag nga gis ni kon julli sal julli juróom bokk na ci li nga xam ne mooy kafaara bàkkaar waaw juróom bokk na ci yi nga xam ne ñooy kafaara bàkkaar ñooy effacé bàkkaaru doomu aadama waaw bàkkaar nag mat a ndax bàkkaar dafa sew waaw Cheikh Ibra bàkkaar kenn du ko xeeb bàkkaar dafa sew waaw parce que bët bët ci boppam day bàkkaar bët day def bàkkaar nopp day def bàkkaar loxo day def bàkkaar tànk day def bàkkaar cër bu yàlla bind rek day def bàkkaar gis nga moo tax yàlla nee na bu yomal xiyaamee comme seeni cër ñooy def bàkkaar bu yomal xiyaamee man yàlla damay tëj seeni làmmiñ Cheikh Ibra bu yomal xiyaamee yàlla du kenn kenn yàlla du may kenn mu wax de ku yor sa làmmiñ wu neex bu bu yamal xiyaamee bu yeboo nga xam ne doo wax de yàlla yamal xiyaam amul wax nit ñi danoo doy waar da ngay gis koo xam ne day wax ba wër la waaye yàlla nee na yamal xiyaam damay tëj seeni làmmiñ al yawma naxtimu ala afwaahim yàlla nee na yamal xiyaam damay tëj seeni làmmiñ kenn du wax ñu ne yàlla lu loo ñuy àttee nag mu ni cër yi ñooy seede <laughs> nee na cër yi nag ñooy seede nag bu ëllëgee <laughs> Cheikh Ibra raay na bopp bi oh nee na cër yi ñooy seede bu yemal xiyaamee tànk moo naan yàlla a ah, man kat maa demoon bërëb sàngam te da ko doon tere waaye nag dem naa fa de <laughs> loxo ne yàlla maa laaloon de maa sàccoon maa joloon de bët ne yàlla maa xooloon man maa di woon jàkk xool ba nga ne ba nga ne ba nga ne jullit yu góor yi nanu sajji seen mbari bëdi ci xool jigéen ñi jullit yi jigéen yi nanu sajj seen mbari ba di ci xool góor ñi nga xam ne première xool ba baal nañ la ko parce que tayoo ko waaye boo siggiwaatee xale bi dafa mool ñuy bind bàkkaar xale bi dafa baax ñuy bind bàkkaar xale bi fu mu dëkk ñuy bind bàkkaar owulowu maanaam loo def rek bàkkaar la xale yu jigéen yi xool kii xool kii ni jantale ki ñu ngi lay bindal bàkkaar yàlla ne jullit yu jigéen yi nanu sajj seen mbaru bët yi ci góor ñi leen lewut jullit yu góor yi nanu sajj seen wër yi bëri ci jigéen ñi leen lewul waaw boo bëggee xool demal takki jabar demal takki boo takkee nag ah nga xool ba doyal ah, yow it boo bëggee xool yow jigéen baal ba am jëkkër boo amee jëkkër nga xool ko ba mu daw waaw waaw ah, waaw bàkkaar dafa sew bu ko defee bët naan yàlla maa xooloon de mhm. nopp ni yàlla maa déglu woon gis nga léeg-léeg nga gis nit koo xam ne day wax wax ju bon kooku boo ko kooku boo ko dégloo yow boo waxul astaghfirullah sax tàkk ca bàkkaar ba ndeysaan da ngay liir ci téere yi ñuy ñuy jox benn genre ceex la nag benn genre léeb la waaye noonu lañ koy indee ci téere yi nee na sëriñ bi dafa am taalibe boo xam taalibe bi da koo gëm noonu lañ ko mën a waxee sëriñ bi dafa am taalibe boo xam taalibe bi da koo gëm ba boolewul sëñ beeg dara gëmam toll ci sëñ bi dee mu ne nañ ma suulaaleeg sëñ bi gaa yi wax wax mu ne non nañ ma suulaaleeg sëñ bi nañ ma suulaaleeg moom waaw waaye ñuy sang sëñ bi mu ne sang leen ma ñu sang sëñ bi mu ne sang leen ma ñu jullee sëñ bi mu ne jullee leen ma ñuy yoor sëñ bi ci bàmmeel bi mu ni yooraale leen ma mais bi nu ko yooree sëñ bi avant muy agsi rek malaaka mi daan dane tag bopp sëñ bi rek ubbi ko mbéj ko tëf sëñ bi ni ko ii li la mu ni ko danga ngaa dégg ku wax wax ju bon ci sa kanam te ne wa astaghfirullah boobu ngay la boobu ngay laalagum en attendant rek taaliba ba génn rek daw ni comme sëñ bi la ñuy mbéj man suma ma toogee ñu rey ma egg jabar ji ni ko waa nijaay mu ni ko neel astaghfirullah waa ji mujj daal ñu tuddee ko pas astaghfirullah moom daal lu waaye wax rek mun la neel astaghfirullah ndax la mu gis dama ko mës wax nag ni yàlla day tëj làmmiñ yi wax loo cëri am genn am benn benn benn benn benn góor ni ma booy nga baal ma ma ni tekk di ko xool mu ni ma fépp ay wax daal dañ ko waa ah, wax de papa <laughs> ah, yàlla de nee na incha allah fépp ay wax de waaw ah, fu fu fu fu dara musa dem rek na ni dem naa fa de mu ni mais dama ni yow daa mel ni déggoo ma de daal di def nii jël loxo yi def nii wàcce nii ba ci ba ci ba ci ba ci dara ci jubux bi daal ba ci omi ni ma fii fépp sax day wax ma ni ko fépp ay wax mu ni ma ay man fu ma jëm ma ni ko ah xanaa fa la yabal fu ma jëm ma ni ko sa kër nga jëm ah waaw moo tax yàlla nee na bu ëllëgee damay tëj làmmiñ yi wax loo cër moo tax julli julli day kafaara bàkkaar bàkkaar dafa sew moo tax il faut ngay julli il faut ngay julli boo xëyee diggante suba ba tisbaar du ñàkk nga def fi bàkkaar du ñàkk nga def fi ba amaana wax nga fi xale bu jigéen téléphone kontaan nga ci wax ji xam nga li ma wax moom it kontaan na ci wax ji am ngeen bàkkaar yéen ñaan ñëpp wa wa nazaru ila ajnabiyati wa talaasusu bi kalaamiha di wax xale bu jigéen moo xam da nga koo woo moo xam moo la woo moo xam da ngeen di message ante moo xam daa estati nga vi ko wax ca moom it mu wax ca nga bég ca wax ja am nga boo ko defee ci diggante su bëggee ak tisbaar bu tisbaar jotee na nga julli de ndax tisbaar gi man laa effacer bàkkaar yooyu boo ko defee diggante tisbaar ak tàkkusaan noonu boo ko defee tee diggante tisbaar ak eh, tàkkusaan ak eh, timis noonu boo ko defee diggante timis ak gee noonu boo ko defee ginnaaw gee itam fexeel ba heure suba bu jotee nga yeewu te julli suba waaw nga yeewu te julli julli julli suba fajar fajar teel waxuma julli fajar julli suba laa wax parce que julli fajar du farata ñaari rakkay fajar du farata mooy yi ngay tari fatiha kese ginnaaw bu ñu salaatoo moom la yonent bi wax ni nag donte du farata waaye rakaatul fajri xayrun min ad-dunya wa ma fiha yonent bi nee na moo gën àdduna ak li ci biir ñaar rakkay fajar sayduna muhammad nee na moo gën àdduna ak li ci biir àdduna ñaar rakkay fajar kon nag nga gis ni kon euh, julli daal lu baax la waaw julli lu baax la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni bokk na ci yi nga xam ne mooy kafaara bàkkaar mooy effacé bàkkaar tabaarakallaahu ñu ngi gërëm bu baax a baax ñu doon àndal ci wàllu caméra bi Cheikh Ibra tabaarakallaahu moo ca ne moog yuusu tabaarakallaahu di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla leen yàlla defal jàmm yàlla defal leen sutura waaye yàlla may leen xaalis bu bari am naa gars yi bëgg naan xaalis de ah Cheikh bëgg nga xaalis tabaarakallaahu yàlla na leen yàlla may xaalis bu bari di gërëm personnel TMS TV gépp tabaarakallaahu rawatina nag sunu sëriñ sunu PDG muy alxaaji Thierno Moule Sow ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla ko yàlla defal sutura daa iman bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di leen jox dig daje incha allah ci beneen xaaj bi ci seen tafsir bismillahi arrahmani arrahim wal asr inna al insana lafi xusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر